mu gàtt mooy man la Papouye euh, porte parole au mouvement Carrefour citoyen tey boo xoolee communes yëpp ñoo fi dajaloo Baba Garage Kër Samba Kane Dingiraay Koul euh, euh, Mexe pour marche kuy marche nag am nga lu la metti li ñu metti mooy suñu yoon yi moo ñu metti lañ bëgg président goudroleel ñu ko nu mu gën a gaawe dig nañ ñu ba ñu sonn dem nañ ba sës mënatuñu xaar dara dara lu ñu bëgg mooy ñu commencé mu liggéey bi sinon d'ici deux mille dix neuf dinañ boycotter élection yi wala ñu voter sanction loolu loolu la ñuy ñaan président de la république mu leer bu ñu ko wax ni ko Kayoor ak Bawol kontaan na ci moom ku ko ko wax daf koy nax population yi kontaanuñ ci moom te te su fekkee gëm na ni population yi kontaanuñu ci moom na jàpp xel ni 2019 parewuñ pour voter ak moom vote sanction mu leer suñuy yoon yi lañ bëgg mu ñuul ci nii wala ci nee parce que ñun nag ci Sénégal la ñu bokk. donc Carrefour citoyen nag politique taxu koo jóg xeex ma Samba wala ma Demba taxu goo jóg sëriñ sang ci biir chef de village yaa ngi ci biir jeunes yaa ngi ci biir groupement de femmes yaa ngi ci biir te loolu mooy Sénégal loolu nag. loolu nag président bu ñu la wanee ginnaaw ñàkk nga liñ lay laaj liñ lay imposer mooy nga defaral ñu suñu tali yii ñaaruñu la leneen soxlawuñ beneen ndimbal soxlawuñ beneen ndigte mu commencé liggéey bi lañu bëgg bëgguñu ministre bu ñëw dig ñu bëgguñu keneen bu ñëw dig président li ñu bëgg mooy nga gudreleel ñu Bambey Baba Garage Ngaye Mékhé Kër Samba Kane Baba Garage Kër Nganda parce que ci Sénégal la ñu bokk sonn nañu sonn nañu monsieur le président loolu mooy cri de cœur bi nga xamante ni si moom lañ lay lancé fii tey ci Baba Garage leneen luñ la wax nag ay nax la kontaanuñu kontaanuñu lii moo fi nekk ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñépp fas yéene nag jébbal mémorandum bi ki nga xam ni moo ko fi teewal mu jëlle la ko ci kaw de Baba Garage Kër Samba Kane Dingiraay Koul Bambey et de Ngaye Mékhé Papouye porte-parole du jour du mouvement Carrefour citoyen. Aujourd'hui, 16 juin 2018, les populations des communes de Kersambakan, Baba Garage, Dingirai, Koul, Bambay et de Ngaïmehe se sont villa via le Carrefour citoyen pour demander une exigence à Monsieur le Président de la République. L'objectif de cette marche rouge et de réclamer haut et le bitumage des routes Bambey, Baba Garage, Ker Sambakan, Baba Garage, Ker Nganda. 80 ans de calvaire, ça suffit, monsieur le président de la République. 80 ans de souffrance, ça suffit, monsieur le président de la République. Nous vous une promesse de campagne à respecter. Ces routes constituent notre vie. Ces routes constituent notre espoir. Donc, Monsieur le Président de la République, les populations du Sud et du Caire se sont réunies aujourd'hui pour vous imposer à goudronner ces routes-là. Ceci constitue la deuxième phase de notre plan d'action que nous avions démarré par un récital de Coran. Et Inch'Allah, Monsieur le Président de la République, si rien n'est fait, on est, passé, on est prêt à passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire à voter sanction ou à mobiliser toutes les populations pour boycotter l'élection présidentielle de 2019. Nous ne voulons pas de bourse familiale. Notre seule exigence, notre seule doléance, c'est le butumas de ces routes. Nous faisons partie du Sénégal. Nous sommes au cœur du Sénégal. Donc, Monsieur le Président, goudronnez ces routes Sinon, les populations sont prêtes à en découdre avec vous. Qu'on vous dise pas que le Cayor et le Baol sont contents de vous. Cela ne tient pas la route. Ah le Cayor et le Baol sont mécontents de vous. Parce que, parce nous en avons marre. Nous en avons marre. Donc ceci était et le, message que le mouvement Carrefour citoyen qui regroupe chefs religieux, groupement de femmes, euh, toutes les populations de toute obédience politique pour demander à Monsieur le Président de la République de respecter sa promesse. Sinon, les populations sont prêtes à faire face à ce régime qui ne veut pas respecter ses engagements. Je vous remercie. J'ai entendu votre message effectivement. J'ai entendu votre message attentivement. J'accuse réception de votre mémorandum et je le à qui de droit. Merci, je vous remercie. Euh, asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp euh, di wax tamit dégg naa discours bi nga xam ne seen porte parole bi def na ko. di leen wax aussi que jot nan mémorandum bi nga xam ne si joxe ngeen ko fi déposé ngeen ko fi danañ ko jot tamit kilifa yi ko war a jot yëpp incha allah je vous remercie.